Mboolem xello kon rek mu doy ngeen. noonu rek la doon benn tampon boo xam ne dañ ci doon jaare pour dugal sunu deuxième invité ñu bàyyi ko mu nuyoo salaamaaleykum soxna Adji Gaye Ngom. waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilah alamin ginnaaw bu ñu santee buur bi tabaraka wa taala julli ci sang sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi nuyu ñu ma fekk fii di nuyu sama naataango bu ma togg mi soxna may mun a jàllu di nuyu yow gi ci kaw bu ci suuf. yaa ñu fekk ñuy waxtaan ak euh, soxna may mun a jàllu jàll la ñu jaar fan la lislaam fekkoon jigéen ñëw lislaam bi mu ñëwee àq yi mu ko jox lu mel ni. balaa nga koy jël nga joxe càng kenn dootu ko donn dafa am droit wu moom dafa am droit wu donn ba duggoon ci ne jigéen en tant que jigéen yàlla nee na kéemtaan la kon góor boo yoree jigéen nee na defal njëkk jëmale ko ci moom teral ko fonk ko nabba nabbee ko ngir lan moom it mu mun la delloo cër boobu foofu nga ñu fekk ñuy wax euh, jigéen en tant que soxna lan ngay sof ci kàddu gi nan la war a doxalee ak boroom këram ngir boroom këram du xalaat mukk di yëkkati bantu bale di ko teg ci yaramam wala mu yëkkati ab pes di ko ca teg alhamdulilah rabbi alamin yaakaar naa ne fekkee mu lu bare waaye li nga jota am na solo loolu euh, comme ni ñuy wax rek suñuy demee ba jigéen boroom këram jël di ko pes wala di ko def yenn yi yaakaar naa loolu warul te jigéen nekkul benn objet boo xam ne te ni saa yoo ko utiliser nga jël ko jëfandikoo boo paree wacc ko pare nga ci déedéet jigéen yàlla da koo teral daf koo tera tera boo xam ne bugg sax ñu def ay sanction ci moom moo tax góor amul droit jël jigéen di ko def yenn fitna yi waaye am na foo xam ne fu ñu fa tolloo léeg lay jigéen borom këram dina ko jëf yenn jëf yi si moom lay aajo parce que su fekkee yow li nga war sa borom kër defoo ko maanaam déggaloo ko yenn déggal yi wala fu lay teg sa tànk tegoo ko fa li jéggaane ah, waxuñu nga dóor ba gaañ mais am na yenn sanction yoo xamante ni teg na pour nga tegoo ko. léegi jigéen fan la war a jaar ba góor du yëkkati loxoom di ko dóor. xanaa mu dégg ndigal. ci ndigal goo xamante ni dafay jóge suñu ko borom subhaanahu wa taala su leen la bàyyi nga bàyyi su leen na bàyyi su leen la toogal nga toog su leen na wàccal nga wàcc. kon dégg ndigal. dégg ndigal jigéen ñi day dégg ndigal bopp bu nar a am barke nee nañ nopp yuy dégg. moo cay sax moo cay sax. waaye jigéen léegi def naa ne. balaa borom kër yi di wax ñoom ñooy seen kàddu yi jóg ci kaw de. Hmm. Hmm? parce que ñëw nañ ne leen émancipation de la femme. ne hmm. jigéen dañ leen tënk génn leen bu leen woddooti bu leen soliti camisole bu leen sol ndoket génn leen ngeen sol ay tubéy te li ma ci gën a metti léegi tuba yi ñuy sol euh, tubéy yi buñ ko sànni woon ci mbalit sax def naa ne buuju maa duñ ko jël. tubéy joo xam ne dañ koy xotti xotti xotti xotti ba doo xamante lu muy nuru ñu sol ko nag ñu jëndee ko lu seer est-ce que loolu tam rôle jigéen la. déedéet lu rôle jigéen jigéen mu génn aayu waaye dafa am fu muy yem su fekkente ne nii boroom kër gi ñëw na la indi ci kër gi am amam demeewul noonu walla yow ku jigéen gi am nga moyen pour dem uti ji. Mhm. mais uti bi ngay uti foog nga organiser ko. organisation boo xamante ni yow da fexeel ba tout sott njaboot gi nga am sa kër gi bu mu loru boroom kër gi am na ak si yow bu mu loru ak fa ngay dem di ko ut di fa uti ji fexeel ñoom tam bu leen lor maanaam lépp loo gis ci kaw suuf waxtaan la ak problème organisation. yow li nga moom maanaam li yàlla moom. ak li njaboot gi moom. Mhm. ak lu borom kër gi moom ak lu société bi moom. Mhm. ak maanaam li ngay amante dañ koy dem di suturaal ak la mu moom. Mhm. fexeel yow booy dem di génn ci biti ak yi nga xamante ni war nga ko matal en tant que jigéen maanaam nga matal ko. boo ko matalee benn benn jafe-jafe du am si yow sa digganteeg sa borom sa sa borom benn jafe-jafe du am yow sa digganteeg ak sëñ bi. Mhm. waaw kon may mun a dégg nga nee na jigéen balaa muy génn. Mhm. dafa war a xool ndax amul ruq bu mu war a bale ci biir këram. ndax amul doom joo xam ne war na kaa sang. ndax togg na li waroon togg est-ce que bu génnee njabootam dinañ am ku leen surveiller. nee na yooyu jigéen daf ci war bi bàyyi xel est-ce que jigéen ñi léegi ñu ngi bàyyi xel loolu ndax gis naa ne boo duggee ci téeméeri kër mm-hmm. euh, juróomi kër rek nga fay fekk jigéen toog fa yeneen yëpp jigéen ñi génn nañu est-ce que loolu du indi sàccum xale yi parce que gis ngeen ko <laughs> xale yoo xam ne kenn du xam bu une heure da ngay gis njolloor xale yi nekk ci mbedd yi mel ni ay ay ceeñeer eh. tabaarakallahu nan lañu war a fexe ba ñaax jigéen ñi itam yu mel noonu ñu gën cee góorlu fexe itam ñu xam rôle bi ñu war a dox ci société bi ñaari question yooyu lañ lay booleel donte fi aji dugg ni yaa ngi fa woon sànq. am na solo macha allah euh, man damay wax ne défi jigéen ñi jamono ji fu mu toll mooy ñu ñu dellu xamaat ñoom ñooy kan. Mhm. parce que ki nga xamante ne si yàlla subhanahu wa taala dalaa tànn di jaar la si yow li nga xamante ne si moom mooy perpétuité. race race humaine maanaam ci jigéen la. saxu la la lay léegi na di saxee mhm. maanaam ci la góor ak jigéen di saxee wala nit kooku def laa teg responsabilité bu rëy kon il faut nga nekk koo xamante ne ko organiser nga. Mhm. nekk koo xamante ne. waaye tàcc yeeg mhm. waaw il faut am ku nekk am caractère. il nga nekk ku organiser ku am fulla ci. maanaam mën a xàmmee lii say priorité ak li nga xamante ne c'est des choses secondaires. parce que tamit bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax. jigéen rôlam bu njëkk mooy moo nekkoon murabbiyatul bayt mm-hmm. femme au foyer femme au foyer mm-hmm. loolu mooy mission bi nga xamante ne si ni moom moom lañ ko njëkkoon a teg te tamit jigéen yi bu ñu xeeb loolu parce que loolu du lu re du du lu tuuti jigéen bu waree xëy war toppatoo kër macha allah lan moo tax mu jàpp ne loolu dellu ginnaaw la loolu du dellu ginnaaw parce que société ci kër maanaam ci ay ay famille ñooy fondé société mm-hmm. te lay baax ci kër gi lay baaxee. Mhm. kon ñoom bu fekkente dañ la yaroon wala ñu sasoon la pour nga yar euh, kër naka nga mën a jàppee loolu comme dellu ginnaaw loolu du dellu ginnaaw si jigéen mooy nekkoon rôle bi nga xamante ne si nii moom la ko yàlla subhaanahu wa taala daal di joxoon. Euh, damay bëgg souvent ñun jigéen ñi ñuy revisiter li nga xamante ne moom mooy l'histoire maanaam taxawaayu Sayyidatuna Khadija. man dama koy wax jigéen ñi tout le temps dama leen ne su fekkonte ne amuloon. amuloon nu mu mel mhm. keroog bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee xaaru xiraa mhm. kon fa la daawu islam bi di yem mhm. kon amaana ñun duñ si mos a jot mu nekkoon jigéen joo xamante ne si vraiment ku pare la koo xam ne melul ni man ndax keroog bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dawee sàng ma sàng ma di lox di tiit mais moo ko dalal sàng ko ne ko yow li am li ma wóor mooy yàlla du la toroxal daka kaa waatal de yow yàlla du la toroxal jamais lan moo tax mu am certitude boobu imagine bu ñëwee woon ne neen mu doon daa seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ñëw moom mu daw. wala mu ñëw fekk ko fa comme jigéenu léegi. waa kon doy na waar. soo wàccee yaay taayal sa bopp añ. yaay taayal sa bopp añ. yaay toogal sa bopp ataaya. <laughs> doy na waar. yaay xëcc xale yi di leen sang. kon de yonent bi kon dina tax dina dina dina jommi bis boobu. ndax du am ku ko dalal. wallaay wallaay lan ngay wax jigéen ñu toog ci kër yi wala nañuy génn uti ko nañuy organiser. nañuy organiser parce que tamit parce que tamit. lislaam tënku rek jigéen tamit quand mu toog ci kër rek bañ a génn am na yoo xam te dafay war yenn saa jigéen génn li nga xamante ne si ne sa boroom kër mënu la kaa jox wala sax mu mën la kaa jox te yow tam nga am ay compétence ngir mën a defar sa bopp wala ngir mën a dimbale société ndax jigéen dina génn dimbale société rawatina bu dee am ci ay métiers yoo xam ne da ciy lan da ciy yëngatu lu mel ni jàngale lu mel ni faj. mode bi nag dem défilé mode. ah yooyu ñun waxuñu ko de. Ah. maanaam femme musulmane la ñuy wax. Ah. femme musulmane. pourtant musulmane yi ñoo koy def de. waaw mais mooy mooy femme musulmane la sax certes mais femme musulmane la bi nga xamante ne si dafa réeree diinam yenn saa yi wala mu ñàkk koo jox njëtte bi nga xamante ne si ni moom la ko borom bi subhanahu wa jox. ku mel noonu wala ngi mu am influence télé wala rajo wala accident ba jàpp ne loolu xëy ne dellu ginnaaw la te loolu du dellu ginnaaw sunu muuraay yii yàlla moo ñu ko tànnal subhanahu wa man muuraay li tax mu gën ma neex mooy la yàlla wax <laughs> yaa ayyuhan nabiyyu qul li <laughs> azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna na jalaabiibihinna zaalika adnaa ay yu'rafna mm-hmm. kon suñu identité la identité la ñun dañoo war a ne jigéen bi dafa war a nekk koo xamante ne si ne bu génnee rek ñu xam ne jigéen jullit a ngi mm-hmm. te li identité bu première bi mooy mooy muuraay bi mm-hmm. li taa aarafu la yàlla wax ne ngeen ñu mhm. mën leen a xàmmee jigéen julli buy dox dañoo war a xàmmee ne du am benn sikki sàkk kii jullit la kon bu ko julli bu ko jullitu jigéen ñi di lan di di di sàgganee mhm. wala ñu jàppe ne problème complexe la wala problème dellu ginnaaw aaday naar waaw du aaday naar yàlla subhaana taala moo ko sant jigéen ñi mhm. te bu ñu delloo ci sunu koro diine yi xam ne jigéen ña fa nekkoon dañ ko daan def ala kulli xaal ah, kon bu fekkee ne dafa dee ci société islamique te dafa jot tey jigéen ñi dekkal ko seen valeur lañ ciy am man damaa xeeb lu jigéen boo xamante ne bu ñuy publicité tàngal mante sax futti la ba nga set teg la pour lan ñàkk valeur mën sa weesu loolu tàngal mante buy jar dërëm hmm. ñu futti la ba nga set teg la ci wetu tàngal mante hmm. ah luy jar ñaar dërëm ñu futti la teg la ci wetam pour lan loolu jigéen war naa bañ loolu hmm. jigéen war na bañ loolu oustaz <laughs> tabaarakallaahu jigéen war na bañ ñu jàppee ko euh, gadget objet wallaay boo bëggee publicité tàngal mante nga fit jigéen soo bëggee publicité tocc mi kaay nga nekk jël góor bi mu sol sous-vêtement wala mu sol tiset mhm. jigéen gi daal daanaka yaramam bi yëpp ban sens la am euh, damay wax ne conseil des ministres moom bu fa jigéen solee jupe ay yeelam di feeñ du problème waaye bu ko góor soloon pàncan dugg ñu dàq ko mhm. est loolu mooy développement wu l'islam wala loolu mooy influence bi nga xam ne occidentaux jéem nañ ñu rafetalal loo xamante ni bii dafa ñaaw. léegi euh, soxna Aji mbir yi bu demee nii lan la ñaax jigéen ñu ñu gën a bàyyiwaat xel seen yarug njaboot bañ a jiital li nga xam ne mooy alalu àdduna. su fekkee yàlla daf laa dimbali comme ni ko soxna si waxee nga nekk fan. xam nga Seydou. Mhm. am na si ñoo xamante ni kenn utal leen liggéey ñoo utal seen bopp liggéey. ay góor wala. ay jigéen. Mhm. su fekkee na nga mel ni ma nekk femme au foyer. Mhm. heure bi nga waroon toog ci kër gi toppatoo ko njaboot gi wala nga seet sa kër ga lu ca jaaduwul nga toppatoo ko defar ko déedéet yaa ngi sàkku sa bopp liggéey sa benn ba. Mhm. maanaam ut grand place booy toog. bu tey nga dem kër Masamba bu suba nga dem kër Paate wala kër Kumba di fa toog. diir bi ngay dem di toog foofu lu mu bon bon bon bon am nga loo liggéey sa kër. jigéen warta damaa am jot ñàkk jot ñàkk jot mm. looy ñàkk jot toppatoo xale yi mm. lokkati woo kër ga mhm. bale woo loolu mhm. bu politique ba wootee nga dem ca mhm. bokk ca xattu mbég 2000 ba bu dul ba euh, euh, sonn si xewal amee xew nga topp ko ànd ak moom di tourner rek mel ni jabar tourisme su borom kër gi wàccee comme ni ko wax mooy toppatoo xale yi <laughs> jabaru touriste waaw wala nga nekk jéggi kooku soor ku dem rek nga topp ci ginnaaw di la nga ca oto yi di dem xam loolu sa njaboot nekkee bu sa njaboot bu ko dara jotee nga toog di jooy loolu erreur jigéen la dama ne defetu jigéen la jigéen balaa nga naan naam na ngaa ne fa rek leen njaboot gi jamono bi ku yàkkaar ne góor yaral sa doom yaa ngi sonn ci jigéen laa wax yaa ngi sonn